Wow, kii moo géej lañ koy wax ah doomu ndeyu Xaadim mais Ndeye may sa font yi da nga jël ci suuf waay moo li ñaata kara la dañuy Kerala. rek li ñaata dañuy snap te mënuma laa wóolu wala trente et un kara la ma ne Kerala. ñaa bàyyi ma snap te mënuma laa wóolu am dee noonu snap Dig mo nga That's right. Nga ne? Yara ngay snap. Wala may snap waaw. Yara ngay snap. Wala may snap waaw. Naa snapal ceeb bi. Snap eh, naa ceeb bi. Mais loo xool Moussa nga ne? Ku la. Non Whoa, my guest is back again. Eh. What's good, G? What's poppin'? Eh, I mean, you know, you know, you know, to do the Maybach, you know. That's the Maybach right here. tonight that should be having my oto yu bees nag gis ngeen oto yaa ngi nii waaw mais Babs. Babs Kaay Babs eh, dama bëgg a ma. information oto oto bi yi bu ci nekk information. oto bi. cent soo ko doon estimé ñaari yële. ñaari kii Range Rover yi. benn bu nekk cent millions. cash lañ ko jënd ah. waxal mu leer nga ne. cash la ko moo gee jënd. moo géej tey dafa mel ni pour cent fee ni nga génn. waaw mais si si noonu ko. ma ah, yëgaat ci kaw waaw. non mais ñaa da non bu baax bi de. bah mi de kon nat lampi tak na moo cher mo geet in the building no ragalo nak dam day li nga mën ko rombu sacc ma jël lu moomut mais moo géej na lampi tak courant du moromu sondel ku wedi la xamul ma lii jàpp ndigal lii ni ma def fii waaw waaw sama rakk ki li ma ko waxon nee naa ko griff nga ci rew mi Rizmon Diz yaa ma jëlee Sénégal indi ma Las Vegas teral ma suturaal ma yëkkati lu bari jox ma ne ma demal nga jox sa yaay yàlla boo tàggoog teraanga li ma la waxoon rek nee naa la liggéeyu ndey pikir la ci doom doos bi yegg si na gor yàlla teral na ku ko teddal dil ci torox ke nga jëm gor su yàlla teral ci torox ke nga jëm gor su yàlla teral xoolal liggéeyu ndey pikir la ci doon rob si na rob ki tapak jël gaaw ne maana géegin jël fëkk sa tan danga teral sa ndey kin ki cak teral sa ndey cak cak ak gin ki kenn du la yërëm laay laay la la yaa sagal sa ndey waaw waaw liggéeyu ndey pikir la ci doon dos ba yegg si na sa yaay sonnoon na kin cak géegin cak cak géegin waa mais kooka la moo géej moo géej mooy. waaw moom lii kay. mais maa ngi xool di waajal lépp damay waajal mais mais mais maa ngi tëj village de. téléchargé nañu Kitma. ah Kitma ñu ngi koy téléchargé. téléchargé nañu ko. noonu lay demee. jeune sénégalais jeune africain. wallaay wallaay. coming back stronger. waaw. zoomal ci Maybach bi. Maybach bi waa ci koy zoom. zoom nañu <laughs> Maybach bi te moom nga jënd ah. ak ban ji Maybach bi ban ji. ak rajo Rova yi nit waay. ah mais mon ami tu es devenu milliardaire de. allahumma amin ku xam milliardaire bu soxorul rek jàppal ni milliardaire nga. ndeysaan milliardaire bu yéene ñëpp jàmm millionnaire sax milliardaire la. <laughs> yàlla ñëw na fi doon xaaree. yàlla yegsi moo ngi nii Seydina Muhammad. <laughs> sallallahu alayhi wa sallam jëlee ko <laughs>